ñaar Korint saa nun nag ñiy liggéeyandoo ak yàlla nu ngi leen di ñaan jariñoo leen yiw wi ngeen jote ci yàlla ngir mu bañe neen ci yéen ndaxte yàlla nee na ca jamono jamu jekke nangu naa sa ñaan ci bisu mucc gi laa la wallu tey jii la jamono ju jekk ji tey la bisub mucc gi bëggunoo la lëmbaaje xelu kenn ci dara ngir kenn bañ a sikk suñu liggéey li nu bëgg moo di rafetal suñu tur ni jawriñu yàlla ci fànn gu nekk dañuy muñ coono yi tiis yi njàqare yi ñu nuy dóor di ñu tëj ci kaso dëkk yi di yëngu ndax suñu mbir ñuy liggéey ba sonn di fanaane xool di woor nu ngi rafetal sunu yenn ci dund gu sell ci xam-xam muñ ak laabiir ci xel mu sell mi ak ci mbëggeel gu raxul njublan ci kàddu dëgg ak ci kàttanu yàlla ñu ngi yor gànnaay yi njubte ci loxol ndijoor ak lu càmmooñ ñu bàkk nu jéppi nu sant nu xas nu ñu di ñu jiiñ réeral mën a nit dëgg lañu ñuy xeeb suñu tur moona tur yi siiw nañu ñu mel ni ñu loof moona ñu ngi dund ñu yarnu teewul ñu rëcc ci dee dañuy dékku tiis waaye di bég fu nu toll ñu tumaranke waaye di womal ñu bari amunu dara fekk noo moom lépp yéen mbokki korent wax nañu leen sunu biir ak sunu biti di leen ubbil sunu xol ubbiku nanu ci yéen waaye yéen ubbikuwu leen ci nun maa ngi wax ak yéen ni samay doom fay leen nu bor bi yéen itam ubbileen seen xol bu leen likoo ak ñi gëmul gan àndandoo moo mën a am diggante njubte ak ndëngte gan booloo moo mën a am diggante leer ak lëndëm gan déggoo moo mën a am diggante kirist ak belyaar gan jaxasoo moo mën a am diggante ki gëm ak ki gëmul nan la këru yàlla mën a mànkoo ak xërëm yi ndaxte nun nooy këru yàlla aji dund ji ni ko yàlla waxe dinaa dëkk ci seen biir tey dox ànd ak ñoom ma nekk seen yàlla ñuy samay gaay kon nag borom bi nee na génn leen biir ñooñu te beru bu leen laal dara lu am sobe kon dinaa leen teeru dinaa nekk baay ci yéen ngeen di doom ci man muy góor di jigéen moom la aji kàttan ji wax